jàkkaarloog Mariama Diabira bi nga xamante ne nee naa leen dégg ngeen wax ju rafet bi nga xamante ne wax waaye Mariama tey bu ñu xamee Diabira grâce à Sidi Diop amaana yaa ngi woon Pikine nekk xale boo xamante ne macha allah am jom lool tey bëgg naa xam ban nga siy def Sidi Diop ba Sidi Diop tey mu tuddee la way woowu. ah Sidi Diop dafa nekk koo xamante daa nekk bu baax rek parce que man débat dafa ne may subaare mu gis ma bëggal ma boppam mu doomoo ma baax loolu xam nga rek Diabira mu jóg ba benn benn Sidi Diop du safaat non sama papa la dee na Jaamiraan waaw boo ñu may ci Jaamiraan